mais eh, jàmbaar naka mu mais naka naaj bi. waay sama mais li ngeen di am na solo ah. mais jërëjëf non mais vraiment ñëpp kontaan nañu quoi ah. ah mais alhamdulilah yéen moom bu ñu amoon ñetti sociétés yu mel ni moom. ah non dëkk bi set quoi. mais jërëjëf grand vraiment ñëpp kontaan nañu quoi. jaajëf ah waaw mais grand defal différence boobu. waaw mais kontaan nan la. Ah. ah ok ok ndox bi ndox bi ok. mais grand jaajëf waay jaajëf xewal naa leen léegi bi la bi la borom oto bi di jox di jox la mais grand yow lu si soon Aliou Sama yow nit ñi nekk liggéey ngeen nekk fii di indi ay di yow grand waay a raado wooy yow xam nga ma yow waay raado wooy laa wax man contrôleur la laa nekk ah mais grand grand pardon xam nga li ngeen def nii dañ koy tere non mais grand man ma dara yow déglu ma rek déglu ma rek yaa ngi sol soutenir Sonaged une nouvelle société nationale nekk tey référence ci Sénégal maa ngi taxaw léegi gis la ngay wax ak waa ji di ko ñaan njëgu ndox non grand man gaañ bi cigarette dama doon jox pour ma sànnil ko ko de mais mais cigarette ni ngay def mais ndox ni ngay def non grand grand gaañ bi benn li ngay def déjà sa dàq xañ non grand parce que yaa ngi tilimal non grand kuy liggéey ci yaa ngi yàq yàq dara li ngeen di def chaque jour ngeen di tenir l'image de la boîte bien l'image des ñoo ngi liggéey bay bëgg a dee mais yelwaan geeg majjaal geeg saraxu bi ngeen war a bàyyi ah bu bi ñu ngi lay fay mais amoo droit di di yelwaan amoo droit di majjaal. ñoom bu ngeen mayee jël leen bu ngeen mayee ngeen jël mais amu leen droit di ñaanaat. non en a gaañ bi moom moo woo ko man daal dootuma ko defati quoi ah. non grand tey mun naa bàyyi mu jàll. tey mun naa bàyyi mu jàll. non man dootuma ko defati. grand man dootuma ko defati. je pense que à partir na ngeen ko bàyyi pour respecter non seulement seen tenue mais respecter seen i collègues yi nga xam ne ñoo ngi daan seen doole muy góor ak jigéen